barki sayidina muhammad damay entraîner di ree koko tek xol ma xol ma Kuma xamone bu ñëk ba at léegi billahi wallahi wa tallahi Kuma xamone bu ñëk ba at léegi fu la combat bi toll combat bi fu ma toll lu dul sigi samay nawle sama papa Ousmane Nawel Ibou Bambara awma sa fay di jale sama benen message ko xamne sama gaayen la di jale yalla yàlla na ko yàlla xaare àjjana muy momi dadi di jale wali sek du o di job si combat bi ni dam ki wax rek la am si combat bi man damaa liggéey ba yegsi fii kii dafa wax ba taxaw fii ku liggéey ba yegsi ak ku taxaw ku taxaw ku wax ba taxaw du benn. su ma ko jàppee làmb ji day jeex barki Seydina Mouhamed maa ko dàq bëri maa ko bu doole fukki na rek mais amul doole su ma ko jàppee dama koy daan. si kàddu gi lan la Cheikh Diagne appel mooy lan si journaliste non sama nit la sama lépp la yaa ma dégg a grand ji dama am ma seen fay Cheikh Diagne yàlla na ko yàlla defal jàmm drapeau Cheikh Diagne du ma xoole muy dem ndax sama Cheikh ñëpp la fi nekkal mais man dama kaa bëggal sama bopp barke alxuraanu karim Cheikh Diagne jimaan donc aw ma seen fay bi laaj samay nit leen a bëgg ak lu mënta am dama bëgg drapeau bi kon sama bakkan laa si teg billahi wallahi taala maa ko fuuf barke alxuraanu karim su ma ko jàppee day daanu barke Seydina Muhammad billahi